ayca les people du week-end li nga xamante ni rek moo gënoon tàng ci week-end bi rek mu euh, Nafi voilà Myriam comme ni nga ko uh-huh. waxee les people du week-end uh-huh. comme ni ñu koy defee lundi bu jot mais euh, laata loolu dafa am ab euh, xibaar bu ma dab léegi concernant suñu compère wala naataango yi nekk fële ca DTV DTV lu muy signifier encore Dakar dimbali ma Dunia TV alors euh, ñoom nag euh, ci benn émission bu tudd TMTC daal dina ñuy tàkkale sévèrement ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci émission boobu boobule di 100 pour cent buzz euh, bigi ak man mi yëkkati sax ay kàddu jëmale ko ci émission boobu na muy doxee bëggoon naa nag ñu dégtal ci téléspectateurs yi tuuti rek parce que ñàkkul téléspectateurs yu Sénégal yi seetaan télé boobu heure bi jotee mais mën naa leen ko cee dégtal tuuti rek ñu xool après ñu ñëwaat rek rapidement pour jàll ci leneen. ay daf mel ni élément bi pareegul. voilà Mouhamed ci gàttal rek dañu doon euh, waxaat ci émission bi ni muy doxee. Mhm. wax nañ sax ba wax ni euh, euh, Ouzin Keita mi nga xamante ni moom lañ fi dalaloon ni ki samedi dafa wérul jarul ñuy jël ni ñu wérul ni di leen invité sur un plateau. wax nañu itam ne Ouzin dafa saaga pratiquement tout la corporation da leen traité de ñu dul wax dëgg entre guillemets loolu itam énuméré nañ ko énuméré sax ñi nga xamante ni ñoom ñoo di présentateur yi wax ni yooyu la émission waruñu ko amal wala niñ koy defee waruñu ko defal 17h12 à 17h25 daal di nañuy yëkkati seen temps jëmale ko ci ñaari ndaw yu nga xamante seen liggéey rek la ñuy def lenn li ma ci bëgg rek euh, wax mooy il faut que arrête ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci média yi à l'unanimité nag de nous ériger en donneur de leçon wala en en en en naka laa ko mën a waxee di euh, joxe ay leçons de morale gis nga télévision c'est juste euh, si man li ma xam un médium pour donner l'information un médium pour clarifier des choses qui citoyen c'est un sénégalais qui est alors bu ñu ko cité sur une chose baax na bu bëggee ñëw leeral ñu invité ko sur un plateau mu leeral maintenant les dérives nag dans les médias Mohamed je pense que fépp lañ koy gis dans les médias les plus euh, développés wala médias yi nga xamante ni ñoom ñoom ñoo nekk à l'Occident dañuy gis ni nga xamante ni noonu la euh, journalistes yi dul mën a canaliser ñi ñuy interviewé ñaata yoon la gis ay xeex yu nga xamante ni am na ci médias occidentaux ñaata yoon la ñu gis nit poser nit question nit keneen ka saaga ak saaga ko yooyu du loo xamante ni mën nga ko contrôler mais de là à à à ay humble citoyen quand même euh, ngeen bokk li ngeen di def bokk li ngeen di liggéey c'est vraiment malsain à mon avis parce que nag fàtte xaju fi ku si nekk am na loo xamante ne xëy na bu ñu toogaloon waxal la ko euh, ñeneen ñi bu ñu la rombee daal di lay xeeb bi ci njëkk mooy aujourd'hui euh, moom moomu lee di bigi ak man émission bi nga xamante ne def nañ ko si Ouzin bi mu traité les journalistes de ça on ne lui on on est dans une émission sérieuse dañu ñëw fii pour leeral waroo ñu traiter de telle chose parce que loolu duñu ko nangu fay micro yeggale li ñuy def alors yéen bu ngeen amee fitu ne émission bi dañ ko enregistré man tam jaaxal ngeen ma parce que nekku leen ci télé bi fekkeew leen fu ñuy enregistré du ngeen preneur du ngeen caméraman il faut arrêter aussi ku ci nekk rek boo jekkoo yaakaar ni yow tu te mets à la place de Dieu tu juges tes prochains c'est pas bien euh, médium bi ngeen toog di wax ñun mën nañu toog médium boobu di wax man DTV yàlla xam ne du ma ko seetaan faire par rapport à la chose remonter leen vers la source de émission bi année yi ko passé ni mu wala ngeen dem xool ci yeneen média média occidental yi wala média occidentaux yi du moins émission people naka la koy defee mais tooñ baaxul parce que ku ci rek comme ni ma ko léegi mën naa laa wax lu nga xamante